di continuer en attendant ñu régler ko diggante bi moo neexul donc doyen ñëw nañ ci fee yi alo euh, ñëw nañ ñëw nañ ci ñëw nañ ci fee yi léegi nag ginnaaw fee yi man wax naa ko tout à l'heure un crime sans coupable lañ ko moo tuddee tax ba baax léegi nii amul kenn koo xam ne jàpp ne mbir yi moom moo ko def wala laalee na ci am déet. tout à fait ah ñun de jaaxle nañ trop. Mhm. jaaxle nañu trop té franchement di bëgguñu fajal dara dara dara dara dara dara suñu bop dégg nga mhm. parce que frustra frustration moy tax ba bëri di di fajal sen bop waaw waaw dagguma la allo ah, allo alaykum allo. salaamaaleykum mu mel ni déggante bi moo moo moo moo jàppandigul ba léegi nii numéro bi rek ñu teg ko nii directement ci haut-parleur mu leer na mu mel ni ba léegi ñu nag moom mënuñu déggante ki nga xam ne mooy Modou Fall xamaa dañuy continuer rek allez allez allez allez yi doyen waaw man dama ne justice à deux vitesses yi la mooy tax ñu bëri di fajal seen bopp cette mère mm-hmm. parce que li ñepp gis nañ ni ñepp xam nañ ni que li mm-hmm. c'est frustrant mm-hmm. li c'est frustrant fekk néew sa biir auto man damay laajte damay laajte ba nit la ñuy fekk néew sa biir oto te kenn du la arrêté. Mhm. c'est la première fois. oui. Mhm. c'est la première fois de ma vie. Mhm. nekkul dëgg nekkul yoon. c'est la première fois de ma vie ñuy fekk néew ci biir oto bu ñu bu ñu tëj portières yi. bâche tëj verre yi. bâche ko ba takk bâche bi ci ruu loolu rek lu ne fang la. man li ma xaw gën a jaaxal wax nga ko premier nee nga jour bi le huit. Badou këram la fanaan moom mi nga xam le 7 janvier. Mm. ci fajar. Mm. mako gis muy tak bâche bi. non da nga ñëk wax. le 8 moo ko bâché. le 8 gendarme yi lañ gis xale le 8 lañ gis xalé yi. waaw gendarmerie biñu démé nga wax bàyyi ñu ko bayyi moom kërëm mais le 8 ñom bi ñibé 19h. mom dafa ñibbi kërëm baaw très bien loolu bëggu nga leer. mom dafa ñibbi kërëm baaw mm-hmm. kenn musu ko garder à vue kenn musu ko arrêter c'est important. Mm-hmm mais góor mon dafa am ben autorité politique ne nekk ginaam wala. bon euh, il faut que ma wax nak allez-y il faut que ma wax. Mhm. waxal mhm. bu wax joté lepp sama portable meun nañ ko vérifier. Mhm. tout le temps bi samay njaboot def à la gendarmerie. amna un certain monsieur X. allez-y y un certain monsieur X. bu doon à la gendarmerie. di interférer où l'enquête enquête gendarme et je ne l'ai jamais vu en uniforme. mais elle ma dit mhm. je ne l'ai jamais vu en uniforme. day du di bureau commandant de brigade bi. gën a téléphone Fini enquête xale moui muy téléphone toujours nee naa leen lu dul dëgg du yàgg. te autorité la kooku. woo na ma xawuma ko xamuma. fa la te te xawma ku ko jox sama numéro. Mm-hmm. Mm-hmm. sam portable la ñu nii. Mm-hmm. sam portable nga mën nañ ko vérifier. léegi moom la la un beau jour mu woo ma. bugguma wax turam fii wala. Euh, jarul ko jarul ko jarul wax jarul wax. par respect bàyyi turam daf ma woo. ne ma X. du ministère de l'intérieur. je mhm. suis jëm intimidé intimider. ah influencer. mon mhm. comportement. Mhm. wala son position. monsieur tel du ministère de l'intérieur. Oui, ñu waxtaan waxtaan waxtaan nous, waxtaan lu nous ñu bay jour beneen jour ba bi ma wooye xam nga lu ma wax. Mhm. da ngay jaay sa kër. waaw nga baal ma ñu ngi may signal régie ñu ngi may signalé waat ne ma naa xool ba xam Modou Fall néew ci ligne bi allo allo. sala voilà kon mën nañu continuer. mu woo ma un beau jour. Mhm. ce monsieur qui se dit du ministère de. l'intérieur de l'intérieur. Mm -hmm te bëgg motax ma bëgg wa ministère de l'Intérieur, vérifier autorise autosaisir mbir mi pour ñu xam ndax c'est un imposteur. Mm-hmm. surtout. et qui risque de faire mal. à l'image de nga à l'image du ministère du ministère de l'Intérieur, mm-hmm. Mm-hmm. parce que xam ni le général Tine biñ fa def noonu le du nitu tiaxan mais nitu caaxaan yu melni buñ fa nekkee dañ ko yàqal liggéeyam. mais lan la wax ci kër. mu woma une deuxième fois pour me dire de vendre ma maison un gars qui ne me connaît pas joxuma le sama numéro. Mm-hmm. de nga xamantewuñu nga woma pour quelle raison. pour m'intimider le premier jour deuxième jour woma pour ne ma naa jaay sama kër. pour quelle raison. Mm-hmm. ne ma no jaayal sa kër nga ñibi village. man ko mais man dëkkuma village. Mm-hmm. man Ziguinchor laa dëkk te chor du village. xolu Ziguinchor la dëkk. bu ko correntas. bu code Corentas wetu ke ñom Jules François Bokandé mhm. fofu xolu Ziguinchor la. mais lu tax mun naa jaayal sa keur mhm. mais dañ ma bëgg manipuler rek. Mhm. xam nga bu la seytane ngembé da ngay dem ba finalement da nga yaay gassal sa bop kamb donc lolou mu melni yow xamone na yow moteur ngay doon euleuk ci fee yi comme li xew ni tay aujourd'hui parce que mon témoin que moom la xam ne nii témoin oculaire la élément matériel yi ngay joxe dafa précis. Ah. mën nañ ko vérifier ah. il mhm. s'agit du ministère de l'Intérieur. parce que man ci information yi ma am sax yi ma am sax kooku euh, laalee na ci enquête bi yu ci bëree bëri. ba ci laalee na ci enquête yi bu bëri bëri parce que il me dit que. Mhm. la plainte la sax contre mes enfants moom moo ko bind. le premier jour. Mhm. te moom yoonam néew ci woon. ah man de man jaaxle na. te dafa doon interféré wu bu baax a baax te te lu dangereux et sans précédent am na ci am na ci kii bi nu mu tudd. Euh, quatre nuits ça sama doom def à la gendarmerie. gendarmerie bi. nuitamment. c'est à préciser. Mhm. nuitamment. Mhm. Mhm. ma fille. extrait ko de sa cellule guddi de. le garçon là aussi. Qui mu fait l'affaire euh, au partage de données bi. kooku tamit la en pleine nuit ñoom ñaar yëpp la extraire sa cellule. kan moo leen extraire extraire mu ne ma adjudant bi. Mhm. ñoom dinañu xam kan la. Mhm. adjudant bi moo ñu extraire de suñu cellule xaaja guddi ban heure ñu ne ma papa xamuñu parce qu'on n'avait pas de montre. Mhm. fan lañ leen yóbbu bureau adjudant bi bi ñu eggee bureau adjudant bi fan la ñu fekk jabaru Badou Pouy ak un monsieur en civil.

les jeter en pâture à ce monsieur-là, qu'il il est traité de tous les noms, Il est menacé. menacer, est La dame n'a pas parlé, hein. mais monsieur bi ak Ils bi dit finalement en fin de compte L'adjudant bi ne monsieur bi la dame là. ont ni vidéo bi ñu non Morgan be Morgan def ci live. Mm-hmm. voilà Morgan. Mm-hmm. dem len jël vidéo boobule. Mm-hmm. ngeen télécharger ma ci ben clé USB ngeen andil mako ko ci guddi boobule. transfert de données quoi. ci guddi boobule. non le ce monsieur en civil là andak la dame la tal seen auto dem télécharger ko clé USB bi àndilaat ko ko. def ci vidéo bi indi ko. waaw mais est-ce que est-ce que nuitamment war nañu extraire un un garde à vue. Hmm. loolu laa bëgg a laajte à nos éminents. xam naa juriste bi dina ci dina ci ñëw à la. avec avec la manière aussi. avec la manière. Hmm. yaa ngi dëgg. Hmm. bon dama bëgg a ñëw tamit. ci kaw arrestation sama doom yi bu dee. léegi léegi dama bëggoon rek avant ngay ñëw foofu nga ñëwul ñu ci parce que nee nga Badou Pouye wala ki nga xam ne moom lañ jàpp ne oto bi moo ko moom. Mhm. jour boobu noonu kenn kenn yóbbu ko kenn defu ko dara. wallaahi asib kenn yóbbu ko le huit boobule. te ba tey kër këram la fanaan. te moom ba léegi muy këram ba tey amul fenn foo dégg. ne woo nañ ko ben tey <laughs> ba tey il n'a pas été inquiété. mu ngi dox yoonam. ma ne la c'est ahurissant. c'est aberrant. c'est Abdou. Mhm. boo déggee xam naa dina ñëw après ci. c'est aberrant. Mhm. na autorité yi jóg ci lii. parce que xam nga lan la je suis un ancien militaire. Mhm. respectueux mhm. de nos lois. Mhm. et de notre justice. je suis un père de famille. Ça est, moi moi mes hôpital Ça y est, moi dans prison. la mort dans l'âme Faut y aller. parce que mon garçon me dit qu'il rien fait. Surtout santal yàlla tuddal yàlla. sant yàlla bu baax góor gi tuddal yàlla. ça fait mal au cœur. ça fait mal mais. Seye Abdou. sama doom bu jee tamit. waaw daf may ne ni ki papa. est-ce que man war nañ ma tëj. pour affaire partage photo rek. dégg nga est-ce que loolu jar na tëj. mais ma ne ko mais su ko yàlla bindee. subir la subir la dafa bokkoon seen destin quand même dëgg donc lii. man. Mm. wóolu naa suñu.